Le gouvernement du Sénégal jël décision ne dañuy euh, xaw a euh, wàññi activités yi nga xam ne njaay ak jënd la ci marché yi ndaxte xam ngeen ko tey fi ñu toll ci wàllu feebar bi mooy euh, cas communautaire yi bokk na ci li ñu gën a sonal ak li ñu gën a ragal ndaxte cas contact yi xam nañ fan lay jóge mais cas communautaire yi mooy koo xam ne mi ngi yor feebar bi te xamoo ci kan la ko jëlee. te bokk na ci di demalante di demalante ci ay bërëb yoo xam ne nit ñi dañ fay daje rawatina marché yi état du Sénégal jël ndogal bu am solo ne <clears throat> nañu wàññi euh, marché yi euh, ak dem beeg dikk bi li nga xam ne rek mooy li ñu soxla ñu koy ubbi li ñu soxla ñu tëj ko ba jamono melaat na mu meloon. loolu nag tax ñu ñëw jàppale ko ànd ak moom gis ne waa marché HLM respecté nañ ko ñaareel ba li ci topp mooy. Euh, ñu ñëw xool marché bi gis nga marché bi ni mu màggete la ma yàgg a wax ci Sandaga di ko wax ci yeneen marché yi dañ leen war tabaxaat defaraat leen

Euh, digle yi nga xamante ne nguur gi def na ko médecins yi def nañ ko ngir ñu mën a mucc ci li nga xam ne moom moo lëmbee àdduna. jàppale bi ak taxawaay bi ku ne dégg na ko président de la république bi mbir mi amee bi mu dajalee ba déglu borom xam-xam yeeg administration beeg ñi nga xam ne ñoo koy euh, taxawu ci liggéey bi li mu njëkk a jël comme décision mooy ñu fexe euh, teg li nga xam ne mooy programme. de résilience économique et sociale Manam taxawu koom-koom bi nit ñi liggéey waaye taxawu tamit njaboot gi ñi nga xamné ne seen loxo jotul seen ginnaw. leneen li moy taxawu ñi nga xamné ñom la seen loxo jotul seen ginnaw. nga xamné ñi ngi ci Sénégal bokk ci fichier bi nga xamné mom lañuy wax registre national unique ak ñeneen ñi nga xamné it mën na am préfet yeeg sous préfet yi maire yi chef de quartier yi délégué de quartier yi organisation communautaire de base yi danañ mën a seetlu ne kat mi ngi ci commune bi waaye wax dëgg yàlla liggéeyam demeetul na mu demee bu ko defee dund yooyu nga xam ne dina ko yebal

ce qui fait bu ñu ko ubbiwul lundi nañ ko ubbi mar mardi mais du ñu ubbi nag mbedd bi mbedd moom kenn dootu ci jaay.